premier Balla man li ma seetlu mooy xam nga mbër ki démb lañu jëjëf daje TFM. mais bu ñu la fa fekkee Balla gay bu sévère lañ fa fekk Balla gay bu tëj boppam waxul ak kenn xoolul kenn wax naa sax keroog te man bu ma la dékkaat micro rek nga wax. mais keroog da ngaa lank ka ndaar ne doo wax fas sa kanam mais tey damaa gis Balla Gaye 2 boo xam ne dafa firi happiness di fecc di fo di ree diggante bi lan moo fi soppeeku wala combat bi jegeñ bi la wala lan la Balla yëg fi mu nekk nii. non dara soppeeku fi ndax xam nga ku xam Balla Gaye numéro moo ko kaf moo ko moom. waaw daa am fu mu war a kafe daa am fu mu war a na ne ñëw fekk samay supporters fekk samay am di jàmm. moo war leen a bëggal te dama leen di bëggal. ci moment bii nga ma fekk nag moo war leen a bëggal ci nga ma fekk. waaw moment bii nga ma fekkoon. foofu du yoon wax. waaw dernier xare Badar la woon. waaw yàlla dogal na nag xëy na antuwul mais nag ñoo naa fekk sama support ak sama am du jàmm maa ngi leen di bëgg digal na waa GFC bu baax a baax ASC ASC yi fi ñëw ñëpp maa ngi leen sant di yaa ngi dégg ngaa ko blende moom c'est mon personnellement moom borom baax la dañuy jokkoo dañuy am jàmm géejuwaay la dëkk waaw moom du ngaaga te du te du ngaaga mais ñoo far mais tey euh, defe naa fi mu nekk nii nag ay fan yu néew a des sa combat ak Balla ak ki nga xam moom mooy Boy Niang boo Niang numéro 2 dégg nga démb déclaration bi mu def kera seen face à face ñëwloo nee na daa am lu ko téyewoon waaye démb tontu na ci loolu leeral na ko mais nee na yaak moom la mu la waxoon ba tey jógu ci bu dee daa am loo ko guuxal bu ginnaaw maanaam bu dimanche boo mënee jël ba kenam na ko jël ndax moom bu mënee jël sa bos du ko jël maanaam da koy jël. waaw maa ngi gërëm Demba bu baax a baax. waaw euh, waa euh, KPE maa ngi leen di baax di sant Euh, di gërëm Alioune aussi tamit ah maa koy sant baax di ko vraiment di gërëm Malick Gakou di suñu mag suñu kilifa ak Néné Tall. waaw yow micro ah, micro koy gërëm bu baax a baax. waaw man nag euh, Babacar Lamine. waaw lamb kenn ñaanu yàlla jël bakkanu kenn. xam naa ne bu dee bakkan yi moom xam naa dinañ bëri. ginnaaw papaam wax na fi bu ñu bëree cinq minutes te daanuma ñu jël bakkanam. moom bu ñu naree jël bakkanam aussi tamit. day métti nan leen defal ñaanal leen nañu ñaanalante jàmm ñaanalante loo xamante ne moo am solo moo am njëriñ lii liggéey la liggéey boo xam ne kenn ku nekk da ciy tedd am lu mu jël yóbbu ko ci këram ay bakkan soxlawuñ ko foo la te incha allah bu neexee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko te sax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko man nag li ma bëgg man moo ko bëgg duma ba pare daan ko bëgg duma daan ko. nga Boy dama ko bëgg duma est-ce que nga loolu. dama ko bëgg duma ko. numéro 2. nga dama ko bëgg duma ko. Boy Niang ku ñuy duma ba pare door a dama ko bëgg a duma Babacar xanaa yooyu yaa ngi may déggoo déggoo ma. maa lay dégg dama ko bëgg duma ko. lay baax ko Lamine boo paree. dafa am engagement boo xam ne daf ko jël ci combat bi ànd ak détermination bu mat sëkk fu ngeen tase moo ngi jéem a heurter sa sa sensibilité lan ngay daloo sa xelu supporter par rapport ak Boy Niang li nga xamante ne moom lay waxee minimiser say qualité comme ni ma ko waxee parce que bu ñu gisee buñ bu ñu defee jàngat ci ay waxam jàngal boobu lañ mën a loolu lañ mën a gis minimiser say qualité di heurter sa sensibilité maanaam mel ni benn Lamine lay taseel lan ngay dalal sa xelu supporter. waaw man li may wax rek xam nga àdduna moom c'est-à-dire gis nga wax sa mbaaxu waaye yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari defet la tegale maa ko may sens amul lépp loo xamante ne rek bu may wax moom bu may wax na ma waxal lu baax ak lu rafet moom dafa war a respecté jox ma cër bëri naa fi mbër bu ne mais li ci solo xam nga mooy lan ku ñu may sa sens da ngay réglé te yem te xam ne dañ laa may sens palmarès boole wuñu victoire boole wuñu kase boole wuñu xam nga la moo ñu boole bëgg a bëggal amateur yi moo ñu boole mais du daray laam moo ñu boole amul lenn pour mu respecter la lan ngay def non soxlawu moom mu xam moom bu ma respecté mais bu subaa ma respecté loolu maa koy liggéey maa koy jëf Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay nuyu Balla Gaye ñu nuyu géej waay tey Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay nuyu suñu Babacar ba pare aal ma Balla Gaye numéro 2 démb dañoo seeti Boy Niang maa de la ville ñu gis ko mu xaw a wàññi poids ci combat micro laaj ko nee na dafa pare pour jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2. dafa bëgg pause combat o ak yow dafa bëgg a jàkkaarloo o yow ci xeex bi dafa bëgg o jàkkaarloo ak yow ci bëri bi est-ce que Balla Gaye numéro 2 pare na pour pause combat bi ak ki nga Moy, day may ba Balla Gaye une minute bu Balla Gaye ñëw mu dem mu dem ba ci yàgg changé changé li nga xamante ne mooy communication bi est-ce que pare nga pour cons combat waaw waaw mais xam nga làmb moom làmb li jëpp am solo mooy ku jël avance di nga bëri di nga xeex loolu jarul laaj bëri ak xeex lañu wax waxuñu bëre simple de bëre ak xeex dana xex wala dana beure mom na ngeen ko won laaj question bu am solo moy est-ce que mboy Niang mus ngeen ko gis mu jakarlo mbeur am njaay joxol job c'est plus important moy lolu am njaay jox jóob mosoo leen ko gis ah kon am na yo xam nit bu koy wax day nax boppam ay luma ko google mom xanaa ñep ko google mom luñu wax mu ne dañ ma google mom mu xaa moo guuxal àdduna bi yëpp yow combat boo am ñu dañ laa guuxal te yow a abi sifle doo def li la xam nga laa koy xamal na préparé lu bees li muy waajal ma ñëw ma defaral ko loolu moom solo te bu mu daw génn saako yi te bu mu daw dem syndicat bala alma ba alma jërëjëf Balla maa lay nuyu bu a baax di la siyaar démb dañu mooy nee na li mu seet ak dina ko def bu diir rek ñu faju ji di def ci nee na loolu mënoo cee mu tuuti dina ko def ak yow jëf nañ ko yow ngeen dem ànd ñëw parce mosoo ko xam nga solo mooy li ma la wax rek laa lay mu sa taxaw am njaay joxe jóg man boo waxee say wax.

nga sport am doole am fit loo wax dang koy def man na fi leen koy waxee une minute yooyu ma may dinaa ko xaar bu ñuul fu mu nekk ma fekk fa duma ko daal ko ñibbi. Babacar Allo.